asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di leen ziar tey dinaa ñëw jox leen benn secret boo xam ne si wàllu ubbeekaay lay dox ndaxte dañoo toll si jamono joo xam ne ku amul rek day métti si yow te kenn dimbaleetul kenn kon doomu aadama bi war nga fexe gannaaw wërsëg bi la yàlla bindal sa jëbi war nga ko am waaye gàllankoor yeeg cat yeeg làmmiñ yeeg bët yeeg def-def yeek yooyu. mën naa gaar doomu aadama bi ba lu bëri muy xaw a métti moom pour mu mën a am kon nag tey loolu laa leen fas leen indil te ngeen def ko euh, incha allahu rabi ndaxte soxla yu wax dëgg neex yàlla xaalis a koy faj feebar yi yu si gën a bëri gannaaw yàlla xaalis mooy mooy mooy yombal yenn mbir yi kon yal nañu ko yàlla may ñu ñëpp te suñ ko amee na barke ñu def ko si lu baax jaamu si yàlla dimbalante si. si vidéo yi passé yi nga xam si ni joxoon naa leen ko am na yu mu leen joxoon yoo xam manam maanaam pour juróom-ñaari sunguf yi nga xam ne dafay ubbi juróom-ñaari sunguf bu ngeen defee ban maxtaar bind sunguf rek da ngeen di leen indil vidéo bi après di ngeen gis li mu leen expliqué foofu si wàllu sunguf yi après ngeen xool sunguf yi mu leen wax yëpp seen tur yi juróom-ñaari yëpp expliqué naa ko yëpp ëpp ko ñu ko ut itam man dama si yor yu bari dama koy defar mix ko gàdd ko fii pour ñi nga xam ne bëgg nañ ko waaye jotewuñ ko pour mën ko am waaw kon ñi ko mën a am te mën ko ut itam ne dem ut ko ku ko mëntu ut wala mu jafe si yow boo ma contacter am na yu mu si defar ba pare waaw kon mu ngi nii euh, mbir mi euh, lu yomb la bu ngeen amee juróom-ñaari sunguf teg à côté war ngeen ko boole ak quatre parfums quatre parfums yëpp dinaa leen wax seen tur yi incha allah waaye ni ñu koy defee laa leen wax ni ñu koy defee balaa nga koy def da ngay jéem ut benn siwo utal siwo bu. bu set wala leket nga jël ndox mu sell bu set wecc boo mënee am ndox ci géej sax moo gën nga def ko ci biir kii bi siwo bi gis ndox mu set la après nga jël sunguf si comme li ma la wax sunguf si ma dama koy mixé damay boole juróom-ñaar yépp dégg nga su ko defee da ngay comp sa loxo nga def si biir ndox mi du tolloog ñetti comp wala ñeent en tout cas dafa war a saf saf ba am benn couleur bi gis nga léegi bi nga ko defee nii ba pare nag premier parfum bi la leen ni wax mooy tudd zaxfaraan zaxfaraan gis ngeen ko zaxfaraan bi nga xam ne day xonq mel ni genre deret gis nga ko noonu zaxfaraan bi ngay ut nga def si biir macha allah gis ngeen nga jël zaxfaraan bi def si biir tuuti rek jarul ngay def lépp defal tuuti rek waaw quelque gouttes rek nga def si biir beneen bi beneen parfum bi moo nekk noonu ñu ngi koy tuddee parfum wu. xaaral ma génne ko si écran bi ngeen gis ko gis ngeen waaw moom basmala lañ koy wax gis ngeen parfum bi lañuy wax wax basmala moom itam see bokk yëpp affaire ubbeekaay lay dox la jël def si biir def tuuti rek si biir si biir euh, show bi wala si biir leket bi wala ci biir paan bi yaa xam daal foo koy def bi si topp mooy zam-zam li ngeen gis nii parfum bi lañuy ñuy wax zam-zam nga jël zam-zam bi itam def si biir gis ngeen. zam-zam la tudd wan naa leen carton bi wan naa leen lépp zam-zam ngeen jël def ci biir gis ngeen voilà su ko defee euh, lépp sotti na après mu des benn parfum bi ñuy wax Aïssa parfum bi Aïssa la tudd Aïssa nga jël def ci biir kon am nga yëpp am nga quatre parfum yëpp muy zafaraan zam-zam basmala Aïssa nga def ci biir yëngal ba mu nekk saafara nga def ko ci sa njaq di ko sangoo chaque jour lii dafa war a nekk sa sangookaay chaque jour nga ciy sangu incha allahu rabbi kenn du gis di la yërëm te xaalis moom soo soobee yàlla danga ubbee ko bu baax a baax a baax a baax incha allah kon ñu ngi yem fii dina jox di daje ba subaa jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.